loo xamante bi soo ko nettalee àdduna sama waay bul ko wax nettali baaxul waaye nit yéen ay aye aye ko dama ne ci xalaat yow nag ni ngeen jàppee àdduna du nii yéen kii da ngeen xam ndax yor na li ngeen koy laaj wala yoru ko leen lu nekk da koy xool ci sa bopp yow tey sa càmmiñ bu doon takk jabar yorut yoraanu yow da ngaa bëgg mu forcer rek joxe loo xam ne amu ko wala sëy moom xaalis rek la non non non man moom foofu duma fi ànd ak yéen vraiment duma fi ànd ak yéen sëy xaalis yoru ko naka mën a yor yor bu baax loolu mooy l'essentiel bi ah waaw comme noonu ngeen ko gisee baax na. man de wax loolu moom duma ci waxaat waaw baax na baax na rek man de waaru naa ah baaja hmm? lu xew ah sama càmmiñ bii hmm. di takk jabar moom xëy na moom de moom doole doolem demewul noonu ndax day taaba taaba rek mhm. léegi ñun ñu bëgg laaj loo xamante ni wër nañ leen kii yor ko nag ak jamono ji ni moom mel. neex yaa gën a xam ne say xaalis a ko yor yow di nga fa amul dara di xëy di sonn way bëgg a dee ak fi réew mi tollu fees man loolu du ma ko defal kenn kenn kenn da nga di gone rek xalaatuma ko gis nga sëy da ngay dugg ci ku la mun a teral mën dara xanaa gis ko example boos mi doon takk jabar keroog boos nu mu yor léegi boos bi mu siiwee daa yàgg boos day jaay rek kon ku yorul doo takk jabar ah gone ga tamit ñu bari nee nañ waxuma loolu dama ne kon ku yorul doo takk da nga a bàyyi ba yor doo koy takk waaw gone tamit day saan di ko dal metti ñu bari nee nañ fees xale bi na ngeen def xëy nañ la Ousmane Saba xale ah, ñu bari nee su doon su doon su doon moom la su su doon ñaar dafa am ñaari tànk du sëyeeg boos li mu nekk handicap rek ndeysaan moo tax mu sëyeeg boos ñu bari loolu la ñu wax. bàyyi leen di xeeb lu bari bari bari loolu la bàyyi leen di xeebaate. Ah! xeebaate baaxul. si mariage nag moo si raw. xale bi mënoon naa dëgg la sax yow mën ngaa ànd ak nit ñi dëgg la sax li ne fës nga may ma naa. Ah, ma yëgu leen lay wax xam nga yow da ngay tëlli tëlli rek gis nañ fi ba tàyyi ñaar nit ñuy ànd di jugo ko daanu ba yàlla ibil leen seen buntu war sax wala yow mën ngaa dugg ci nit nii sax mu yor lu dul jeex dugg ci mu ñàkk ndax seen wërsëg yi bu am ah, xale bi luy problème ma ne xale bi yàllaa ko teg li ko teg laa la waaye waroon naa am jëkkër ju nekk millionnaire milliardaire waaw ah, taxaw taxaw taxaw am Ousmane wuy ma mënoon na koo am laa wax man tey la lan lay mën a am yow xanaa ku nekk balaa ngaa mën a am leen ñu dégg li ngay am ba pare lan la lan léegi lan moo xew du la expliqué dara li leer lan la. ay xeebaate ay xaalis soo soo yow doo sëyee ko am xaalis yow dugg ci yoo xam ne dafa am dara waaye dugg ci koo xam ne amul dara ngay sol bay bëgg a dee ndox mi ngay roose dangay dem ci robinet ba di fay ñetti xaw ma fukki dërëm pour yàlla dugg si. est-ce que yow doo jéem a liggéey amal sa bopp bàjjan yow mi. fës ko tuuti. mbaa xam nga dara yow affaire de sëy da xamul dara ndax yow doo sëy yow de un kenn bëggu la yow amoo patt amoo waxaale yow xamoo amour yow boo doon amuur it amuuru fen ngay fen yow parce que yow yow yow bëggoo fen yow fen la bëgg ndax yow fenkat nga yow bëggoo fen fen la bëgg léegi bëgg nit ak ñàkk bëgg nekk ana xeeb ak ay ma dem te ñëw mais fi ku nekk li nga am ngay nduggee marché yow am yow mbëggeel kii kii yow déggoo yow xanaa déggoo yu sunduur mbaa mbëggeel wuy capitaine mu boromam saranan dan dan dan dan dan bouche nga tëj ko. tey sa bàyyi baaxul de. xamu ko doon foonanteel waaye mënu de. ndax ndax ndax bàyyi na lay affaire bi. ñooy dem di génn ku amul dara ku tekkiwul dara dem di maraan di ko indil. yow bu ko amul dara. sax yow kii kii dégg naa ko fii muy wax ak benn xaritam naan ko waaw bu la waaye bul dem bu la iree dul dem coupé ñu iree coupé ñu iri ko. bàjjan nag xoolal sa bopp nag. voilà coupé ñu iri ko. jox ko rendez-vous yow de Ousmane bi bu lay dem wax ko fa war a def ba pare nag jaarloo ko pharmacie. moom mii la ñu iri ñu iri xaw ma moom ñu ma man ku iri ma jël man ku iri ma jël. man ko iri. ma dem man ku man damaa laa bi sama bopp man damay joxe sama bopp aaw ak beew ak see. man eh, baatam bu bon bi eh eh Feuz man damay joxe sama bopp gratuitement. soo dugg da nga dugg ci ko am dara mu naan aaw ah, ak beew dafa amul dara man sama bopp dama koy joxe gratuit mais moom ba pare. laajuma la loolu dama ne lan la doon uti pharmacie. jënd na fa jëndal na ko man de bëgg naa bàyyoo xamante ni moom Messi da koy sol. Chris sol ko. ñu fubalee ko quatre-vingt-dix minutes temps additionnel ñu dem ba matawee jeex kenn ne poxoj. yow. dégg nga poxoy poxoy waxuma ak Ousmane yow laay wax. non non non non Ousmane yow laay wax. yéen muñ leen. gis nga ñàkk a nangu ndogal baaxul xanaa xamoon ni Zos noonu la def Zos. Zos gis nga ko ak Ada Fass yow Zos Zos war naa ah, tili war Zos war naa tilimal victoire jàmbur. demeewul loolu Zos sagam bi moo ko laal. daanu daanu daanu ma daanu ma léegi maa ngi gaañ ma ma nga gaañ ma soo may gaañ ma lay gaañ ma gaañ ma taxawal léegi taxawal gaañ ma Zos demeewul noonu Zos daa def soog yow ban kilifaas nga teg waay. yaa yaa xëy na bàjjen yow li nga wax fii yëpp yow mari ci mariage bi yow Ousmane li mu wax dëgg la. kii lay indi yow baa yëg nga ne sa jëkkër ju bon jee gën sa far bu baax rek. kii da dul am. nee naa la ngeen nangu ndogal dama dul zos daanu. tax li may wax daal dina daan arafaas. yow eh. yow zos zos xanaa xamul warut tilimal victoire kenn Zos moo fi gën njëkk a génne cuucu mbër. foog ngeen xam ne nag yow Zos moo fi njëkk a génne cuucu mbër. baa cuucu jàmbur yi nga ah! Zos moo daan mbër ba génne cuucu. baa cuucu jàmbur yi nga tudd. du Zos la nee naa cuucu rek mu jógee ni nga bëggee cuucu. cuucu. bàjjan bàjjan Ousmane mii mooy tudd Ousmane di la xamal Ousmane mii da lay yàq de. di piic piic anu piic piic cuucu. tali baaxul ay nit yéen ay nettali